jërë ngeen jëf amis téléspectateurs people 221 ñu suivre leen di nuyu di leen bëggee di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaan ci sunu réew mi jàmm di nuyu sunu kilifa diine kilifa day eh, tey nag ñu seet si benn ndaanaan koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di Serigne Saliou Mbacké fa seen i siq moom waxtaan ci wàllu actualité waaye ci xam-xam sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay suivre. asalaamaaleykum wa rahmatullah inna alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala rasulihi nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa rabbi sarax li sadri wa yasir li amri wa ahlul xoqdatun min lisaani yafqahu xawli wajxal kalaami rasidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida ñu ngi leen di delloo ziar di leen nuyu euh, di nuyu équipe bi yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaanal képp koo xam ne mu ngi seetaan jàmm di nuyu Sénégalais yëpp. bisimilah euh, su may njëkkee wàllu seet nit ki day ñëw nga seetal ko doog ko ñaanal wala nit ki day ñëw nga ñaanal ko pare mu dem sàng seetal ko. Euh, muy wàllu seet laaj nga question bu am solo nit ki faw bu ñëwee ñu xoolal ko jos nag tige maanaam faw ñu xool ko xam lan moo ko dal ndax nag euh, nit ki mënoo ko ñaanal rek te xamoo li ko dal ndax feebar yi bari na feebar bu ne ak ni mu duggee nit ki nekkul feebaru hôpital rek nit ki am na leneen lu ko daal loolu faaw nga xool ko ti seet mooy buntum ñaan mm-hmm. te fe kër gooy dem rek faaw nga jaar ci bunt bi door a dugg ci kër gi mm-hmm. kon lépp loo gis rek daa am bunt mm-hmm. waaw muy aljana daa am bunt sawara daa seet mooy buntu ñaan waaw ndax nit ki balaa nga ko ñaanal faaw nga seetal ko xam li ko dal xam li koy saafara su fekkee mën nga ko saafara yàlla dénk na la ko nga saafara ko su fekkee mënoo ko bul ko yàqal bul ko lekkal xaalisam mhm. nekku mënuma ko mhm. ndax nag ñëppay de mhm. te loo gisul dee gën a jege fal mawtu aqrabu wa adha wa amar wa yaati baatatan wa maanu mafar loo gisul rek dee gën a jege te lu ko gën a metti gën koo weex amul te amul benn dawukaay moo tax daal mbir mi mbir mi ñuy liggéey nii man mosuma ci am ay jafe-jafe ndax li ma mën dem naa ne mën naa ko lu ma mën la mënuma ko waaw waaye nit daal yàlla mosuñu fi boole mu ñëw te yàlla saafarawul mbiram. Mhm. waaw ci foofu noonu lay ñëwee ci li nga xam ne moo di waa moo di wàllu ubbeeku. Mhm. parce que jamono ji ñu bare ngi génn réew mi ñu bare ngi dem di dugg naka su noonu ngir ak tëju. Mhm. te yàlla dénk la ci secret. mën naa di citer muy secret jaaro bi. mën nga ñu di lay leeral. waaw euh, secret jaaro bi wax dëgg yàlla bari na ñoo xam ne dañoo tëju. Euh, ñii sobe moo leen tëj ñii yàlla moo moo leen moo leen ubbiwul rek. ñii ay gàllankoor yu metti moo leen ñii jëf ju bon moo leen tëj ku nekk ak la ko tëj loolu tamit faw ñu xool ko xam lan moo la tëj jox la ay sangat ndax jaaro bi daa ànd ak ay sangat sangat bi pour sangatu cat la ndax jaaro boo ko xasee takk cat moom dootu la dugg waaye sangat bi nga xam ne cat yi dootoon na dugg si sa yaram moo koy dindi ndax lépp la wax na leer jaaro bi boo ko amee da ngay ànd ak kaaraange da ngay ànd ak ubbeeku mën nga xëy di encaissé cinquante mille boo amee jaaro bi nag mën nga xëy encaissé sax ay ay millions waaw mën nga xëy sax encaissé lu ëpp cinquante mille yi nga doon encaissé maanaam mën nga xëy encaissé trois cent mille lu mu naqari naqari ak foo mën a nekk nag waaw kon jaaro bi ubbeeku la leeral naa sànq maam xand la sàll moo ma jox secret bi moom sama sama maam ci côté Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa la sama maam ci côté sama yaay Serigne Bamba Sall la Serigne Bamba Sall moom la ñu tuddee Serigne Touba moo jàngal Mamour Anta Sali ki ma jox secret boobu nag sama maam la bàyyi la sama waajuru jigéen sëtam la sëtu Serigne Bamba Sall la kon ba ma jox secret bi secret bi nekkul sax lu ñuy joxe pour di joxe secret bi. ndax mosul tasaaroo ci famille boobu la nekk. amul kenn koo xam ne xam na ko te nekkul ci famille boobu noonu. Mm-hmm. waaw te du te tey nekkul ne ku nekk ci famille boobu ñu jox la ko mm-hmm. li tax li ëpp solo sax li tax ma jot ci muy mbàkk gi ma sant bokk sëñ Tuubaa ba noppi bokkat foofu ñoom ñuy tiitaroo sëñ Tuubaa loolu moo tax ma ma ma am yu bari bari bari ci ñoom ñoom ñi ngi Saalum ku leen xam ñi nga dëkk walla laan te kooku ku ne koy seet si dafa gumba waaye day ñaan te noonu la mokkale alxuraan noonu lay bindee kilifa goo mën a cité muy kilifa diine muy murit muy tiijaan muy kilifa àddina dañ fay dem di di di fa ñaan daleen di samp ñu bari bari bari bari jaaru bi nag lekk bu bon boo ci tegee sa bët day tuuru jaaru bi lekk bu bon boo ci tegee sa bët maanaam loo xam dañ la ko posone jaaru bi lekk bon boo tegee sa bët day tuuru te aussi jaaru bi lépp loo am daanu toog sa loxo day toog sa loxo maam lépp loo am muy tasaaroo da nga mën a réaliser dara di defar jaaru bi ba tey soo ko amee Euh, cat mënu la dugg si soo ko amee xéewal dañ la dikkee noonu nit dañ la jox te doo xam lu tax mu jox la te day ànd ak bayre ak kaaraage wax dëgg yàlla jaaru boo am solo du ku ne nag lañ koy jox. la waaw ci foofu nan laay ñëwee ci wàllu wàllu wàllu wàllu papier nga ciy liggéey boo xamante ni mhm. ni mhm. mhm. kii day am jafe-jafe kayit wala muy xëccoo wala muy déposé nga ci liggéey liggéey bu yaatu waaw wax nga dëgg lu am solo maam papier ku nekk ak yittewoo nit ku nekk ak yitteem rek muy Sénégal ki nekk Sénégal ki nekk Europe ak foo mën a nekk boo ko amee jafe-jafe rek am nga ko maanaam papier bari na ñoo xam ne ñu ngi leen di ñaanal ci papier bu ñu leen seetalee euh, génnee leen sarax génne leen sarax bi maanaam am na ñoo xam ne dañuy xëy jot ci am ñoo xam ne une semaine boobu duñ ko génn te jotuñ ci waaye am na ñoo xam ne nag moom mën na diire ba un mois. mën na diir sax ba deux mois ñu door ci jot ndax nit ku ne rek ñu la xoolee la ñuy gis si yow waaw ndax nag sunu borom dalay wan après nag euh, wan gi mu la wan noonu si nga mën a sukkandiku ba xam nit ki lan moo koy lan mooy doxal ay mbiram waaye ñaan moom balaa nga ci dugg faaw nga xool ko ak lu mën a doon faw nga xool ko ba xam fan ngay teg sa tànk. dëgg la ci foofu laay ñëwee ci li nga xam ne mooy ilmu nujum. Mm-hmm. bariwul ñu ko ñeme. am na ñoo xam ne dañ koy wax waaye si <laughs> làmmañ rek la yam tey nga ci jël say engagement mu jafe lool ci sëriñ yi. waaw xel xilmu nujum de lu jafe la lu jafe la te bari na ñu koy wax jafe na bari na ñu koy wax xel xilmu nujum nit mën na ko jàng cinq ans mën na ko jàng trois ans te du ko maîtriser xilmu nujum sama sang ba muy sama maam di sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu taala anhu maam la ci man ñu tuddee ma ko nag. te heure bu ma ko tuddee rek sama xol féex muy sama turu turandoo wi rek moo am solo may taalibeem Serigne Saliou Mbacké maanaam gis nga xelmu nu juum Serigne Saliou da ko maîtrise woon maîtrise xam ne xelmu nu juum boo juumee dëgg-dëgg da koy jaawaleeg baatin ndax euh, bu ni lii day am day am maanaam boo maîtrise xelmu nu juum ba dëgg dëgg dëgg dëgg boo soxlaa dara sax xel sax day day teew maanaam boo soxloon ni ah, euh, dama soxla gura di ko waxantu sa xel yàlla mën na def gurgoo mu agsi maîtriser mu na jum dëgg-dëgg nag mooy problème ndax dafa niroog baatin lool waaw ngi mel ni ma misaal ko comme mbartal maanaam tali bi pont bi mbartal bi oto bi di wàcc yow nga traversé tali bi maanaam fa xalaat kulli xal oto bi da lay laal waaw wala boo ci mujjee yàlla moo lay dimbale loolu mooy xel mën nu juum moo tax des fois am ñoo xam ne bu ñu ko amee dañ naan neex yàlla naqar yàlla yàlla nañu yàlla déggal ci kàddu boobu mais dama leen di expliquer pour mu gën a leer waaye loolu ak beew la lay yóbbul rek ndax xel mën a jum boo ko amee it xam-xam bi pour yàlla la ay adat la ay mbir la yëfi biddiw la loolu moo tax waaye maîtriser ko nag mooy problème wax bi bari na daa yem ci làmmiñ mais pour nit ki maîtriser ko problème la ndax nit ki boo ko joxoon sax benn kayit ne ko wax ma benn jour benn jour jour bu ne lu muy tombeel jour bu ne ban biddiw biddiw bi ban heure lay leer ak ban heure lay lëndëm du ko xam bari na ñoo xam ne duñ ko xam moo tax maîtriser xelmu nujum te loolu moo gën a tuuti ci xelmu nujum moo tax. dëgg la ci foofu noonu ñëwee li nga xamante ni mu di wàllu impuissance sexuelle tey nga dimbali ci ñu bari ñoo xam ne ñii xam naa ci dara dénk nañ la seeni doom mhm. ci daara ja ñii ñëw nañ tuddee la ay doom mhm. te loolu dafa yaatu ba ci biteel boobu mën naa ni mhm. euh, bokk na ci li nga xam ne day faj impuissance sexuelle ak yeneen faj yoo xam ne bari na mën nga ñu ci indil ay Euh, donte duñ la jox benn butéel fekkee traitement bi la deux butéel la bu fekkee da nga bëgg xaaj bi dañ lay jox benn butéel bi butéel bi euh, euh, l'impuissance sexuelle lay saafara muy l'impuissance sexuelle moo xam awra bi day dugg wala muy lax wala muy nooy yooyu yëpp da koy dindi day dindi l'impuissance sexuelle buñ ci duggee bu ñu waxee l'impuissance sexuelle yooyu dugg na ci day dindi fatiguement général day dindi ndox siti day dindi hémorroïde day dindi jabet day dindi tension day dindi perte balance de douloureuse da koy dindi day dindi bët yu lëndëm biir buy metti tànk yu xar estomac insomnie sinusite yooyu yëpp garab bi da koy dindi amul benn effet secondaire ndax dañ ko dugal ci ay laboratoire euh, Espagne maa ngi nuyu Seex euh, à passage sonn na ci sama ab taalibe la ku sonn la ci moom mi ngi foofu noonu te moom fa mu nekk ñun ñoo ko samp ba mu bari fa ay place yu bari bari waaw ndax euh, nit ku ne bu la deflee dara rek ci sonn ci ngir sa ngir sa jëmm waaye ngir sëñ Touba da nga koy sant. loolu moo tax sonnoon na ci lool mais dugal nañ ko ay laboratoire amul benn effet secondaire te traitement bi quinze jours nga tàqali ko moom. te boo ko naanee ci saa si da ngay commencé gis résultat yi maanaam euh, bu fekkee nag danga am feebaru say dëgg-dëgg dana métti sa bopp dana la loo it waaye moo tax bëgguñ nit bu indi otom naan ko heure bu nit indee otom naan ko fii nii commencé ko fii dama koy booleeg safoor mu yóbbu ko ba këram waaw waaye lu ko mooy rek mën na xaw a kii waaw. ci foofu noonu laay ñëwee ci wàllu nopp. Mhm. ñu bari di ko wax nga ci liggéey liggéey bu am solo. waaw nopp moom 24 heures am na nopp 24 heures mooy sa soxna ndax am na ñoo xam ne dañuy nekk lu tax nopp 24 heures sax ma koy def daanu ma ko def mais am na nag waaye duma ko defal ku nekk mooy ki ñi ma koy faral di defal mooy ñi nga xam dañoo nekk bitim réew seen soxna andi leen problème. maanaam ñu jëlee fii seeni soxna ñu dem ba seen soxna ñu xam ne foofu jigéen dafa bari doole ñu leen di sonal di leen buntu xatal ak seenu njaboot ndax jigéen xelam daa gàtt moom jàpp na ne lim jàpp rek mooy dëgg loolu moo tax ñooñu laa koy defal waaye ma nag koo xam ne da jàpp sa soxna di ko dóor ki nga xam ne sa soxna moo moo bari problème moo bari jafe-jafe kooku bu ma la defalee nopp 24 heures dana yemp say tànk te loo ko sant mun la mu mu mu def ko. jërëjëf ci foofu lay jeexale wàllu fas gi fas gi laa bëgg nga jël ma ci ay leeral. Euh, am na it fasu kattan waaye fasu kattan gi bokk teg butéel bii nii. Mhm. bokkul. dëgg la fasu kattan gi lu tax ñu am ko pour wàllu ngóor dafa am ñoo xam dañuy tële am ñoo xam dañ koy judduwaale am ñoo xam duñ ko judduwaale. biñ judduwaale nag dañ lay jox fas gi bi nga xam ne it judduwaale waaye rab moo ko def dañ lay jox fas gi waaw donte dañ la takk xale sax wala ñu liggéey la ci wàllu kàttan yooyu yëpp ra fas gi da dindi loolu mooy fasu kàttan fas gi moom képp ku ko am bu yàlla dina sant yàlla fas gi nag pour amygdale la waaw fas gi pour amygdale la képp koo xam ne daa am daal moom ñu naan asthme képp ko xam ne am na ko incha allahu rabbi bu jëfandikoo fas gii nii nit dana koy takk toog fii nit dana koy takk toog fii gannaaw yàlla day toog fii avant muy dem nga gis ni muy wàcce am na ñoo xam dañ koy opérer après mu leen di sonalaat mais fas gi boo ko takkee trois jours da ngay tàqalikook moom fas gi bañul dara bi ñu koy takkal daa am sart yoo xam ne faaw ñu def ko ñu takkal la ko waaye bu ñu la ko xasee takkal ñu dara mais trois jours danga nga tàqali ko moom waaw fas gu efficace la te képp koo xam ne am na ko sant na ci yàlla ndax amygdale lu sonal nit la feebar bu sonal nit la mhm. waaw du ñàkk ne nag xel day fattu mhm. boo amee leneen looyu xam ne muy ay secret yoo war a dolli mhm. yu méngoowul ak li ñu wax wala ñu fàtte ko aussi waaw euh, am na it benn sunguf boo xam ne sunguf bi at ak at laa koy am jour tabaski laa koy am xar ma euh, lay nekk ci xar tabaski la lay nekk garab ga jour tabaski laa ko mën a dem wuti ko muy xas ma la may bind jour tabaski laa ko mën a bind. loolu pour lu tax ñu def ko mooy nit ki yaram bi feebar mu dem xool yaramam gisuñ ci dara te moom mi ngi yëg ay métit maanaam sunguf bi dañ ko def lumu lumu cuuraay bi dañ ko def lumu lumu ab cuuraay la da koy suuroo lekk boo lekkoon un an wala deux ans te reesul wala trois ans ba lu mën a doon ba trente ans te lekk baa ngi sa biir boo ko suuroo da waaw ndax cuuraay bu efficace la moom it boo ko def jëfandikoo danga koy gis ci sens yi waaw lépp yaram bu nekkoon sa yaram bépp feebar bu nekkoon sa yaram te xama ko da ngay tàqalikoo moom ak feebar bu mu mën a doon. Mm-hmm. waaw bari na yoo xam ne mi ngi fi waaye faw ñu tënk ndax dafa am ay yitt yoo xam ne maa ngi ci jëm. dëgg waaw war nekk ci liggéey bi. képp koo xam ne daal ñëw na wala mu woote am leneen loo xam ne waa waxuñ ko fi. te moom mu soxla ko na woote rek bu fi nekkee dana ko nekk na fi bu nekku rek ñu ñu ko nekku fi. jërëjëf foofu noonu laay ñëwee ci coow li nga xam ne am na diggante démb ak bërki démb. Mhm. mu di coow ajali xam naa dama ci duggaat rek est ce que jàpp nga ni Baye Mbaye MC ak mhm. jël audio yi noonu di ko di ko di ko partager ci ci doomu Baye Niass. waa dëgg la euh, xam nga Baye Niass MC kilifa diine la doomu maam Baye Niass radiyallahu taala anhu la waaye. dafa nekk ni lépp loo xam ne day leeral ah, loolu dagan na mu mu mu mu mu joxe ko ndax nag eh, audio yi audio yi li muy garaaw garaaw déggoo ci ñi nga xam ne mën nañoo xaawi seen sutura yooyu yaakaar naa dañ ko dagg. Mm-hmm. waaw li nga xam ne nag mën na leeral mbir yi Sénégal yi jot ci muy junj. yooyu Sénégal yi jot nañ ci. mais est-ce que defaroo ko tax a jóg parce que dégg nañ ci waxi audio bi mu naan xaalis boobu noonu mën nañ ko virer fi nga xamante ni mooy sama compte ñu bari jàpp ni moom intérêt personnel lay carte. waaw xam nga lan la. Adji Sarr moo ne ko mën neen ko def sa compte mu ne ko mën nga ko def sama compte sëriñam te baayam ay mbokkam yëpp mooy seen sëriñ ba baayam lu tax mu dugal ko ci daa bëgg mu dimbali ko. ndax sa sëriñ moo lay gën a jotee. xëy na loolu la. mais nit ñi ñooy yor seen xel. di xalaat fu ne nekkul far nag mais damay wax dëgg ndax xul xaqu law kaana murran doomu aadama lu ma fen amul ku ma jaral fen parce que ñu bari aussi tamit ñu ngi wax ne audio yi noonu da koo téye di ko jaay moo tax mu garde audio yi ba tey maanaam génn na ñu commencé di yàq der xam Sénégal euh, nit ku ne ak fam far te nit bu faree rek euh, ay waxam jaru nga koy déglu nit bu faree ci yenn far ay waxam jaru nga koy déglu xaa mu andi lu leer ñu déglu ko bu andiwul leer jaru koy déglu waaw bu ñuy wax ñëpp naan euh, da audio yi da ko soxloon boo xoolee ci nguur gi lañ far maanaam nit moom même boo génnewoon leneen nit dana ci teg leneen waaw Sénégal yi moom dañoo baax dañoo baaxoo noonu maanaam bu audio yi génnuloon duñ ko mos a gëm. d'accord ma ñëw ba ba ba audio yi génnee nag. Mhm. nga gis ñu teg ci ay yàq der. Mhm. mais daa daa bëggoon santas xam mhm. bu santasee. bëggoon doxaan. Euh, yooyu yëpp wax nañ ko. waaw. xam nga yooyu yëpp yooyu ay ay invent ay wax yu amul njariñ la wax ju mhm. amul njariñ la mhm. waaw yooyu moom jarul dóor maa waxi waxi waxi euh, aji saar jarul doom dóor say doom daal mhm. wax yi di jëm tamit ci wàllu euh, nguur gi pouvoir jarul dóor say doom ndax ñoom lépp luñ fi wax mi ngi fi dàng lu si bari defuwul kon jarul dóor dóor say doom ndax nit moom kàddu nga koy jàppee seen kàddu waroon te jëmm ji ñuy xeex muy sonko sonko nit ku yàlla dimbali la ku yàlla dimbali la ba mu génnee impôt domaine ña ña da nga a gis ku liggéey impôt domaine amoo kër. Ousmane Sonko këram ba mu génnee dane ci saleeram am la ko doon fay. Mhm. te ba no dani ku weddi ma wan la yi te mu ngi koy fay pareegul. Mhm. oto bi mu yor waa Pastef ñoo ko jëndal. nit ku jubee noonu man mosuma ko gis. Mhm. moo tax Serigne Cheikh Saliou Mbacke mosul recevoir politique te sañ. mosu mos nga ko gis. mosoo gis ma recevoir politicien te da koy recevoir Serigne seex Saliou Mbacke di xalifa Serigne Saliou Mbacke moo tax mu ne xaw ma lu ma leerut waaye seen xaalis moom su ngeen ko dénkee du ko lekk ku maanu la mënu leen ñoo jaxaseeg moom di ko diaboliser bañ bàyyi ko bëgg nañ ko te yàlla tax te ak cofeel yàlla moo koy def ci xol te mi ngi ci ñun man de bëgg naa ko ci sama taalib yi yëpp fexe naa bañ bëgg ko te bu woote jotee bu soobee yàlla moom la ñu woote. kon da nga jàpp ni affaire bi complot la parce que aji mu ngi wax naan. fi tàppale la man bu doon ma ay complot la li tax mu wax loolu ay complot la affaire bi kay moom waxuma complot sax mais daa weesu complot. Mhm. ay ay mbir yi dafa dem ba weesu complot. 14 morts maanaam dañ seen yëfi ñàkk fayda yi dañ ci rey ay nit dañ ci rey ay nit. maanaam. quatorze moor ci xaalisu àdduna ci àdduna te pouvoir nañ xam ne pouvoir ñett yi ñett rek lay jëriñ xam-xam xamle rek lay jëriñ pouvoir muy doole ak yërmande kese lay jëriñ yaa ngi dégg alal dimbale lay jëriñ kon ñett yi boo ci defee yii am na njariñ mais boo ci deful yii amul njariñ nañ xam loolu bu baax. mu mel ni daanaka li duuf ci nag bi xajul ci cin bi. xajul ci cin bi te am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi taxaw di la xaar. Mhm. lan ngay tàggatoo aussi lan ngay ñaanal soppe yi lay suivre. maa ngi tàggatoo ñëpp euh, di leen gërëm di leen sant di jaajëfal Sénégal yëpp di ñaan yàlla yàlla saxal fi jàmm. amiin ñi nga xam ne caabi fétti na leen ginnaaw yàlla delloo leen seeni njaboot ñi nga xam ne. Euh, yàlla féete na leen caabi féete na leen ginnaaw yàlla delloo leen seen njaboot ñi nga xam ne it ñu ngi ci lalu hôpital yi sunu borom yëkkati leen te delloo leen seen njaboot waaxiru daxwee naa alhamdulilahi rabbil alamin jël ngeen jëf di leen ñaanal jàmm di ñaanal équipe bi yëpp jàmm.